Medina nee nan waaw seex ba Macky mi la wóolu ba dénk la impôt yo domaine ne la yaama doy si CDC président Macky ku mu wóolu jàmbaar nga guru merem fay sàll wuy naa leen seex ba merci de la Medina loo mënti am du sens mérite la Messi de la Médina loo mënti am du sens mérite la Messi de la Médina loo mënti am du sens mérite la seex ba nit ku ñëw gis la soxlaam dang koy faj ay waay sargal ko seex ba ba bu demee bëgg del si Médina na ñu xoolaat suñu bopp xappale seex ba ci limbi bi cheikh ba borom sayate be yaangi dox ci social medina yaangi dox ci social partout wa sayate be geureum nan sa jambar si Senegal motax ma way la wa proxine amuñu sa fay cheikh ba nit ku ñew dis la soxlam dang koy fajj ay way sargal ko ba bu demee bëgg a del si Medina nañu xoolaat suñu bopp jàppale seex ba si li muy woote sama réew lay jaay oh, sama réew lay jaay sama réew seex ba mu liggéey Medina sama joodu gor la doomi jàmbaar bëgg na Medina doomi jàmbaar sama réew laay gaayoo sama réew laay gaay merci beaucoup waa génération 2000 ngeen laa may mos bi ndeysaan yënguleen li ma doone li ma doon waa génération 2000 li ma doon waay man fexe naa ba ràññee li ngeen doon way way wa ke Seex ba li ngeen doon way ndeysaan wa génération 2000 yena a bëgg seex ba ba mu jeex japp leen fi ngeen japp fofu la ma ngi ci yeno assalamu alaykum wa medina assalamu alaykum toutes les femmes de la CATB Nous sommes réunis aujourd'hui autour de la calabasse de solidarité Je leen remercier bu baax calabasse bi l'épargne chaque année avant la tabaski nous euh, avons une grande fête ma ànd nag les membres du bureau sont là Il madame a Mme ñaa Djenya, de Il y la Mme madame Sarr Mame Fatou Diagne Adji ñoom ñoo formé membre du groupe yàlla trésorière muy Khoudia Diagne euh, dafa yegg seegul dafa liggéey ñii laa ci àndal ci bureau bi ñu koy liggéey ça fait plus d'un an ça plus de trois ans ñi ngi nekk ci calebasse boobu ma bàyyi leen nag madame Sarr mu détaillé leen bu baax le fonctionnement euh, suñu programme bi durant toute l'année Mame Fatou Diagne asalaamaaleykum euh, mbokki Médina maa ngi nuyu ñëpp ku nekk ci turam ak santam man la maam Fatou jaañ madame Sarr nekk euh, responsable ci bureau calebasse bu femme CATB bi nga xam ne Adja Ratu bu Kébé moo ko jiite euh, historique gu calebasse bi nag ñëpp xam nañ ne jigéen ñi takkul liggéey rek lañu xam suñu première édition natt lañ ko defoon

caisse d'épargne c'est moins que yi nga xamné dafa partout dans le Médina car macha vous ñi ko nak ñun au nombre de 115 femmes yo xamné répartir en deux caisses ku nek bo ñëwé sa am ay carnet est-ce que je peux voir les carnets s'il vous plaît dañu am ay carnet ku nek bo carnet yaa ngi nii moom la ñuy bind noteel la li nga joxe parce que par part lañuy nat par bu nek 2500 la kon à partir de 2500 ba lo meun tous les 5 du mois ak le 20 deux fois dans le mois ñu teggi ko daaw bi yalla dogalé ñu yegg ca cappaandaw ga am nañ 6 millions euh, confiance bi fami am mu tax ñu redoubler d'effort membre yi gën a yokku car macha allah ren am nañ douze millions sept cent douze millions. six millions six cent soixante dix mille francs ñu ñaan yàlla nag mu yokkute édition bi bañ doon suñu dernière édition ñu koy def ay édition yu bëri bëri bëri bëri di sant nag faamu Médina yi parce que confiance bi ñu am ba ñëw attribuer ñu ko di ñu dénk seen xaalis car macha allah ñuy gërëm nag suñu leader Cheikh Ahmed Tidiane Ba. ak jabaram Adja Lissa Ndoye di gërëm suñu parrain euh, El Hadj Amadou Diaba di mag ci Cheikh Ahmed Tidiane Ba ak góor gi Ndoye di rakk ci Cheikh Ba ñu ñu dooleel ci suñu bés bii la ndax ku nekk mënoon nga boo ñëwee rek jël li nga natt dem bi ñu leen koy yëgalee ne dañuy teg suñu kalabaas dañu dooleel ci poos dooleel ñu ci ay denrée moom la ñu takk nii am na ay omo ay madaar ay café thiep, vermicelle manchallah, on peut pas tout citer mais il ñi a leen di sant di gërëm ñëpp réitérer encore son engagement au niveau de notre leader Ahmed Tidiane le maire de la Médina Machallah, allah di ko ñaanal yàlla ndam bu le soir du 23 janvier ñu ngi ko mu dugg ci biir maire durant l'année dañuy def ay crédit de notre jox famille cette année, on a fait à partir de 50 à 200 000, nous donne label famille. Maintenant, je précise une chose, nous donnons label sans intérêt, parce que calabasse de solidarité, nous les calabas, quand nous avons 200 000, 200 000, nous rendre. On a une fiche d'engagement de prêt bon, pour faire durant 3 à 4 mois Machallah, nous avons ci un problème sans intérêt parce que nous dañuy solidarité. Munuma lebel ni 200 000, mudem ligay am 50 000, je lui demande les 20 000 francs. Raison pour laquelle nous ne devons jamais intérêt. 200 000, il a est lebel 200 000 gagné d'elle. Et l'année bidigno, on souhaite lebel ni peut-être plus. Mais euh, notre leadership a metté janvier, migiti ligay pour soigner épargne, y nous def, mudolé nous, défendre une politique, bonga politique de développement pour nous avons peut-être de à 200 000 les femmes ñu avons peut-être million etc. raison pour laquelle nous avons 100 millions pour sur la table pour xol naka lañ organiser on fait appel à toutes les femmes de la Médina on fait appel à toutes les femmes de parti on fait appel à toutes les femmes de daïra une politique de développement donc on fait appel à toutes les femmes de la Médina que les 100 millions li Cheikh Ahmed Tidiane sur la table Nous xool que ñun tout toutes les femmes am le ci droit joxe une idée ñu xol naka lañ ci liggé ba femmes de la Médina ñu dem pour une émergence de la Médina nous lañ wax salam salaamaaleykum tonton Cheikh Ba dañoo organiser won ay semaines culturelles suñu école léegi amuñu fonds amuñu ay moyens ya nga xamante mën nañ ko def mënuñoo mënuñoo fay yëpp ak suñu xaaliss léegi dañoo dégg ni que yow da ngay dimbali xalé yi lool mo taxone ñu ñëw pour yow nga nga dimbali ñu daal loo am rek baax na. Bonsoir euh, Cheikh Ba nous nous sommes les représentants de, du gouvernement scolaire de Abdoulaye Maturin Diop nous sommes nous avons organisé des festivités dans notre école mais sachant que nous n'avons pas de de fonds et nous savons aussi que vous êtes là à aider les, les enfants, à nous accompagner. C'est pour cela que nous sommes venus auprès de vous pour, avoir, euh, pour demander d'aide, de soutien, parce qu'on sait que sans vous, nous, ne sommes rien. vous êtes là pour nous, nous sommes là encore pour vous. Nous sommes ensemble, nous sommes là les enfants de Médina, parce que moi, je suis né ici, à la rue 23, Gal 26, bien sûr. Maintenant, tous mes amis ici sont euh, à Médina, nous sommes des élèves, les élèves ne peuvent rien faire sans les parents et les parents aussi sont, euh, euh, ne font rien sans les élèves. Alors, nous demandons de l'aide, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. man Adia Gabou Sow mu Ahmed Tidiane Ba maa leen di nuyu di leen ziar di leen jox yéen ñëpp seen wàccuwaay waaye nuyoo bi dama koy dooree ci sama DG di Cheikh Ahmed Tidiane Ba di ci teg sama marraine Adja Lissa Ndoye mi nga xam ni lu ñu mën tey yàlla moom la tabarkàlla macha allah di nuyu sunu madame la présidente di bu Ba mii ñu bëgg lool bëgg bëgg troisième âge lool lu mu wax ne troisième âge lu génn mu ni troisième âge maa ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam di nuyu nag sunu càmmiñ yi ci ginnaaw Alaaji Abu Diop maa ngi koy nuyu di ko ziar Galo Thiam Diop la maa leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp tabarkàlla macha allah ndax fépp fu ñu nekk rek yéen a ngi nekk suñu kanam yéen nekk suñu gannaaw di ñu dëgëral di ñu dooleel tabarkàlla macha allah ñu di leen gërëm di leen sant may gërëm nag femme CATB yiy def lii tey lii du tey yàgg ngeen def seen calebasse yàlla di ci def jàmm ngeen àndandoo jiital madame la présidente bi nga xam ne xale yee ko xool rek bëgg ko te mu mat la mu doon tabarkàlla macha allah ba tey jii ngeen di tëj. yal na leen ci yàlla defal jàmm yal na leen ci yàlla defal jàmm mu doon ay calebasse si calebasse si calebasse ba yàlla def ubbi sax mu doon banque yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def. les membres di bureau ñu nga xam ne ñu am Pastef ñu ñi nga xam ne heure boo leen woowee ñu jóg ñii ñoo leen yoreel seen douze millions six cent soixante-dix man xam nga lan laa ci am dugal ci Excel. bind rekk laa ci am awma ci leneen. ah d'accord maa koy moo ko yor. mi ngi am 7 millions et quelque. moom Aji Caba moo ko accompagner ñoo assistante am. caisse 2. Mam Fatou moo ko yor. Diène ñaa moo ko accompagner. Diène moo yor numéro calebasse bi. mom lañuy envoyer envoyé bi ak Orange Money bi machallah durant six mois mon envoyé yor bi ci mom lañ ko don envoyé machallah dem nous calculer dara manqué wu ci ñu trésorier la indi tégal ñu muy trésorier ñu leen di remercier bu baax a baax et je pense que yéen confiance bi ngeen am ci moom ba ren ñu am 12 millions 670 mille daaw ñu amoon 6 millions xam naa bu déwénee incha allah dinañ am million millions. te année bi day gën a baax ndax dañuy am accompagnement accompagnement de notre leader euh, Cheikh Ahmed Tidiane Ba ñu ngi leen di bu baax a baax. 12 millions épargnés on avait fait des crédits ci je donne l'exemple de Jane. elle a dafa 200 200000 millions millions. mu jël ko defar ci boutique mi ngi a nen nen dina la nen ci chaque femme chaque leader y a beaucoup de responsables qui koñ Nous, nous ñu regrouper cette famille parce que, machallah, les calabas sont nombreuses actuellement. Mais les petits Cheikh Ahmed Tidiane Ba. Nous, les femmes de la C.A.T.V., nous toutes les femmes de la Médina Loho, les femmes de parti, les femmes de Daïra, les, toutes les femmes de la Médina Loho. Nous sommes les femmes de Cheikh Ahmed Tidiane Ba, les 100 millions, les femmes de développement, nous avons une idée, nous avons une expérience, nous avons une une Médina émergente avec nos braves femmes de la Médina Nous ngi remercier bu symbolique pour chaque membre du bureau Je vous remercie. di jaraw lak Logan Lowe.